Voici les champions d'Afrique 2021. Voici les rois du continent, les lions de la Teranga, Cheikhou, Khalidou, Sadio, Edouard, Ghana et euh, le président qui salue les rois lions. voici la coupe. mi ngoog coupe baa ngoog Ibrahima. Kalidou Mama. coupe baa ngoog Sadio Mané Kalidou Koulibaly ànd ak euh, Cheikhou Kouyaté Idrissa Gana Gueye. Sadio Edouard Mendy. yaa ngi si biti lool di leen xaar. ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw 17 la la la la les premiers mots de Sadio Mané. dëgg

Cheikh Gana xale yaa ngi biti leen xaar fees del mooy xew tey. kontaan rek kontaan rek. ba nelaw ngeen def. nelaw ju de. nelaw ju de. da ngeen assuré dugg avion bi rek ñëw. voilà Kounda avec les joueurs les joueurs qui qui sont là voilà ils sont là Mbaye Mbaye voilà ils sont là. Alfred Gomis voilà Balo Touré Boulaye Dia yeah. et puis euh, ils sont tous là maama ñoom ñëpp ngi nii. ñoom ñëpp ñu ngi nii Fatick moo ngi nii le jeu quartier ñoom ñëpp ñoo ngi fi Nampalis Mendy. Nampalis Nampalis. Nampalis voilà. gis nga bët bi sax day xaw a métti waaye.

gaayam mu ngoog gaayam ngoog Ismaila Sarr mu ngoog Bamba Bamba Dia ma ngoog Pape Matar Yayes ñoom ñëpp Jory yaa ngoog Seyni Dia justement avec euh, justement voilà Lopi et puis ils sont tous là et voici Alioune Cissé Accolade avec le président de la République. Aliou Cissé. Aliou le champion, l'entraîneur du Sénégal. Alioune. Alioune, c'est une, revanche sur l'histoire. Allez. Alioune. Ils sont dehors, des milliers de personnes, on va dire des millions. que vous, que vivre avec ces gens-là aujourd'hui L'histoire se répète encore, mais cette fois c'est avec le trophée. Vraiment, on s'est battu. Voilà, voilà, ça... Délégation, Tony Silva, Lamine Diatta, la génération de 2002, a été très un peu le staff euh, Jacob Consagnan. waaw moom gaal gaa ngi robi moom lañ doon wax sànq Sénégal sunu gaal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu joowee rek daañu yegg ba nga xam ne la ñu bëgg a yegg te joow nañu te yegg nañu te incha allah encore dolliwaat yeneen i distance lu wóor la te wóor booloo rek mooy doole kon président de la république ku ci nekk ñu ngi lay joxe sa cër ndax bi noonu la amee itam ñu nekk ci biti te di a baax. waaw waaw seen yaram ñu lay may ndox. waaw ñu sa yére ndax nag le football professionnel dafa laaj lu bare bare bare bare encadrement bu am solo la laaj te defe naa ne itam nguur gi def na ci moyen yëpp ndax nag tey jii booy xool ci wàllu koppar ci wàllu moyen logistique nguur gi def na ci lépp li na ko ci def ngir ñu am ndam ba ngoog rafetlu seen liggéey rafetlu seen taxawaay rafetlu itam euh, sécurité bi ndax sécurité dafa baax ci équipe ndax nag ñoom ñooy tax gaa ñi du ñu dem du ñu ñëw kenn du dugg du ñu rax kenn du yàqal suñu teranga ñoom nag waa sécurité bi liggéey nañu ba mu mat sëkk ndax nag jamonoy corona la ñu nekkoon ndax nag euh, jamonoy corona gis nañu bi ñuy tàmbali coono yi nga xam ne jot nañ ko am waaye gis nañu waaye lépp li nga xam ne kaaraange gi yokku nañ ko ba amul benn yoon ku ñu ndax duñu te ba ñuy mujj football it wane nañu ne amul benn bokk na ci sécurité bi nga xam ne ah, <laughs> waaw. Thierno Dramé macha allah bu ko. Massiré Faye jërëjëf. jërëjëf RTS kontaan na. Sénégal kontaan El Hadj Thierno Dramé. jërëjëf jërëjëf ana Ibrahima Mboup. ana François Seck. kontaan nañu euh, Ibrahima ñooñu ñoo di waa RTS. doon assuré lépp lu jëm ci direct ñëpp gis li nga xam ne jot nañ ko def démb Ibrahima Mboup ak ki nga xam ne moom moo di euh, Thierno Dramé ci wàllu reportage ak Aïssatou François Seck Aliou euh, Cissé mi ngi noonu ànd ak président de la République ak capitaine Koulibaly ah, devant le drapeau national le capitaine